jërëjëfe baay allah allah la allah jërëjëfe baay allah allah la ilaha illallah allah allah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wala li ak qadri min qidaar al azim kaddu gi sant yàlla rek la ñëw tey ci Medina Baye pour def fi màggal guddig juddu gi yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ku nekk xam ne Baye amuloon lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñu jàng dara ci mbindam xam nañ ci dara waral ñu déplacé wu ñun ñëpp ànd ak njaboot gi yëpp ñu ñëw ziyaara ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wareef la nag ci ki dimbale ci yàlla loo mën a am ci teraanga nga def ko jëm ci moom du la yàlla ñu wàññi dara lu mooy daf la yokk te ñun xam nañ ne ki tax ñu xam jëmmi Mawlaana Cheikh Ibrahim Cheikh Tidiane yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sunu sëriñ Baye waral nag tey yu mel ni su amee suñ xel day dem dëgg-dëgg ci moom ñu war a jël sunu añ yóbbu ko ci moom euh, def sunu ziyaara ci moom mu ñaanal yàlla ñu xam ne incha allahu rabbi euh, danañ ko man at yi nga xam ne mooy ñëw. waa Evi TV ñu ngi leen di dokkeel bu baax di ñaan yàlla liggéey bi yàlla na yàlla kawel ko yàlla na yàlla eggati leen ba ngeen dem ca kaw fu ñuy séntu télévision yi mag yëpp yàlla ngeen fa egg te liggéeyal baay la te liggéeyal baay ko ko def rek amul benn pertement bu ci nekk moo tax incha allah rabbi ñu ngi am yaakaar bu baax da ngeen gis dooleeku